dale na jàmm ñu ànd xëy yër yéen a kaay ñu xëyandoo yéen a kaay gi di Sud Quotidien Le Soleil Le Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ceebu jën Penda Mbaye jamono ji patrimoine mondial la waa UNESCO ñoo fa jaara journal bi nee na ceebu jën léegi ma ngi ci taabulu adduna bi yëpp naam nag yàgg na Mauritanie yàgg na Mali yàgg na Guinée waaye jamono ji law na ci adduna bi te nag mën naa jaay li nga xam ne mooy image Sénégal journal bi nee na ceebu jën buñ ko inscrire mu nekk patrimoine mondial fii ci Sénégal xam ne fi la bàyyi ko réew mi nag moom metti na ba maara détail yi ginnaaw nag yokk mburu gi nga xam ne am na ba ñenn ci askan wi naqarlu ko ba maara détail yi maanaam chômage gi nga xam ne nekk na Sénégal loole tamit bëri ay ndaw ñoo xam ne dem nañu ba mënuñu ko supporter maanaam ñàkku xëy gi yéene kaay gi ne ne transport bi sax dafa cher waaye nag boo ci yokkee li nga xam ne mooy lu yaas bi loole tamit jégg na dayo moo tax am na ñenn ci askan wi ñoo xam ne ne nañu état bu Sénégal farata ji ci boppam la ñu xamul maanaam du ñu def mukk priorité te jafe-jafe yi nga xam ne askanu Sénégal amee nañu ko ñenn ñu nee nañu état bu Sénégal seen nga ñu nekku si jamono ji la ñu tal mooy ana nan la ñu lijjanti ab xaalis ba financer seen liste ba yi nga xam ne amul benn njëriñ yoo xam ne moom lay état bu Sénégal nekke ak nag yàqu xaalis gi nga xam ne moom la gouvernement bi nekke loolee ci boppam moo war a dakk du samay kàddu ñenn ci askan wi ñoo ko biral ma ngi ci journal bi di réew mi quotidien yéen a kaay gi de la témoin nee na en tout cas li am ba des daal mooy dëkk bi jamono ji metti na ba maara détaillé ndax foo làmb rek dafay metti waaye nag ñi nga xam ne ñoo jël congolonko gi mooy ñi nga xam ne ñooy waa Sen'Eau yi dafa cher ba jéggi dayo te ndox mu bon mi nga ne moom la ñuy jox askan wi loolee waa Sen'Eau ñoom teguñu ko fenn am na sax ñenn ñoo xam ne ndox ma mee ko gis yéen a na lu jëm ci wàllum njàng njàngale mi ji dafa daal di salfaño bi nee université yu Sénégal jamono ji tension bi daan na yéeg yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na njiitu réew mi di président Macky Sall niki démb ci conseil des daan nay naqarlu bu baax baax recrutement anarchique bi nga xam ne moo am ci fonction publique bi yéen kaay gi di mandat nee coow li bëri bëri ci université yi niki démb ci au lieu que Macky Sall wax ci lu ci njàng meeg njàngale la doon wax waaye nag yi maanaam nag Macky Sall coow da koo daal di topp ndax syndicalistes yi ñoo ngi gréw étudiants yi ñoo yi ñoo ngi koy songo ba pare bëri na ay njëg yoo xam ne dafa daal yokk ba maara détaal yi yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu musiba am na ci CEM bu Wakam niki démb dafa am benn boo xam ne da doon def éducation physique maanaam tàggat yaram ba mujjee nag ñàkk bakkanam journal bi nee na yóbbu nañu ko hôpital Dantec ngir nag daal di amal li nga xam ne mooy ab autopsie waaye nag waajuram wu góor jamono ji dafa mer ba maara détaal yi ndax nag nee na doomam joojee lu toll ci fanweeri tuur lañ ko dawloo wàllub sportif yéene kaay gi di Vox Populi nee na amul benn université bu nekk ci réew mi boo xam ne jamono ji yëngu la université Cheikh Anta Ndakaaru dafa pëcc xoo ba maara détaal yi université Assane Seck ba sa Ziguinchor dafa pëcc xoo université Gaston Berger ba sa Saint-Louis dafa pëcc xoo ba ba sa Bambey dafa pëcc xoo ba maara détaal yi yéene kaay gi du L'Observateur nee na am na ñetti étudiant yu université Alioune Diop yoo xam ne yóbbu nañu leen sa kaso université yi di fa wax mbirum ceebu jën yéene kaay gi de laas xëy dañu xibaar naan ñu nag secteur bii nga xam ne moo jëm ci wàllum wér-gi-yaram gi yëngu na ay assemblée générale ak ay dépôt préavis de grève ak ay marche nationale la fa gis li ma gis yéene kaay gi de Le Quotidien mooy ñi nga xam ne ñooy médecin ñi doon liggéey ci centre de traitement yi te ñu waroon leen jox ay prime de motivation loolee état bu Sénégal dakkal nag yéene kaay gi de Les Échos nee na crédit

at la yéenekaay gi de la Tribune nee attention am na lu toll si juróom-ñaari téeméeri junni ci nit ñoo xamante ni ñooñee boo moytuwu leen xiif dina leen rey Jurbel Kanel Bambey yéenekaay gi nee na Sénégal nag bu ñu waxantee dëgg bokk na ci réew yi nga xam ne soxla nañ ndimbal ci lu jëm ci wàllum aide alimentaire yéenekaay gi de Les Échos nee na fépp ay yëngu waaye nag fii nga xam ne mooy police police tamit yëngu na ndax ñi nga xam ne ñooy gémi yi xam ne ñoom la ñuy yebale ci làmb yi ñoom tamit ñoo ngi laaj jamono ji seeni prima yéenekaay gi nee na nag ki ñu joxar bi baaraamu tuuma mooy lieutenant de ji Jibril Moussa Camara yéene kaay gi di Libération nee na scandale am na fi nga xam ne mooy Sahara société africaine de raffinage yéene kaay gi nee na benn marché gré à gré bu toll ci deux moo fa am yéene kaay gi di Rewmi Quotidien nee na Parcelles Assainies unité 17 foofee musiba ma bu kumba gu rëy moo fa am dafa am benn jigéen boo xam ne nee na ab commerçant la fekk dafay jaayaale yamba yéene kaay gi nee na teg nañu ko loxo fekk ci moom lu toll ci fukk ak juróoma cay cornetu yamba ci soutien de gorge bi ma ngi dànkaafu tafaatina nee na nag bu ko tafaatin woowee nag ci ab xeex loole nag mooy woo naar ci guuxum soow